moom ah ba ma ko wanee photo yooyu mu dem ngir da ak lu mu doon def ngir la ma ne xale bi baa biiral nañ ko ci diggante bi maître laa Diouf génn naan musul fanaan sama kër musul fanaan sama kër mu ma ne ko waa maître Diouf xale bi bu fanaane sa kër loolu mooy lan loolu dara nekku ci sa cliente la sa cliente war na mën a xalaat war na mën a fanaan sa kër maître ala Diouf naan non non fanaan sama kër musul fa fanaan euh, Adji Sarr dem ci euh, euh, maître dem ci kii Hélène Françoise lan la wax ci Hélène Françoise mu ne Hélène Françoise musuma yendu kër googu xam nga waxoon te loolu ay fen la yendu na kër El def fa mooy ba muy euh, euh, euh, sol jaune noir mel taxi ba muy kaaloo jaune noir mel taxi foofu kër El yendu pendant presque quatre heures six heures de temps mu dem ci Françoise mu c'est pas vrai musuma yendu kër après maître Diouf génn di ne mës na ben yon la mës a ñëw sama kër waaye mosu fa fanaan mosu fa fanaan ma ne waaw mais la ñuy bañee aji sa fanaan seen kër ah mais ce client am nga droit mu fanaan sa kër métti Diouf loolu dara nekku wala da ngay da ngay bañ ñu ne bu fanaanee sa kër daf lay defal massage maître Diouf dafa bëgg massage de maître Diouf nee na dafa am ben ben mauricien xaw ben benn góor kinésithérapeute moo koy deux fois par semaine su ma juumul maître Diouf. kon maître Diouf bëgg na massage comme Adji saat bi naa dafa mën a massage xëy na maître Diouf loolu la doon bañ kii nee na wóorul xëy na maître Diouf loolu la doon bañ Adji Sarr bu fanaanee kër mën na ne ko waa aji man de comme da ngaa mën massage doo ñëw maase ma <laughs> mais maître Diouf ñun jiw ñu la dara jiw ñu la dara Adji Sarr war na mën a fanaan sa kër comme El Hadj Diouf comme comme nga fate woon Assane Diouf fatoon nga fi Assane Diouf kenn waxul dara ci yow comprendre mais li ñu jaaxal mooy. Adji Sarr nan lay amee yaram ba mu demee ci Françoise mu wax ne Babacar ture wax na dëgg damaa tuxu Adji Sarr ko wax de Babacar Touré wax na dëgg damaa tuxu waaw après lan la foofu dafa amoon yaram ba man ma naan ah, xale bi ba ba ba biiraatul ci diggante bi gaa ngeen baal ma ngeen baal ma bëgguma bàkkaar yàquma deram mais ñun ay analyste lañu ñun ay analyste lañu parce que tamit dañuy wax li am parce que xale bu jigéen moom kese ci apartement xamuñu kan nooy dugg xamuñu kan nooy génn atum lëmb xale boo xam ne docteur bi dafa ne mës na xam góor gars yi ngeen baal ma ngeen baal ma ngeen baal ma ñun dañuy analyser ndax ba mu fi jiñee président Sonko biir dañ doon analyser tamit comprendre du question ne dañuy attaqué asa euh, euh, euh, kii Adji mais mais jigéen jigéen la góor góor la Adji Sarr bu nekkee ci benn appartement néeg atum lëmm xamuñu kan mooy dugg xamuñu kan mooy génn te jigéen la mais mën nañ ko fa def dara même bu dul si coobaram sax lan moo tax mu jékki-jékki rek bëgg daw li ko Touré wax Pape Sané ñëw daal di ko daal di ko euh, kii Pape Sané ñëw ci ne daf ko doon def massage moo de <laughs> li tax eh ba ay ba ay ku moom xar bi rek nga bàyyi buum bi maître Diouf dal day génn di xatray musul fanan sama kër te kenn laaju ko ko kat kenn du ko ko laaj mu jëkk musul fa fanaan mosu fa fanaan mais xale bi xale bi li tax mu jeex ci diggante bi moma jaaxal li tax mu jeex ah ba du limay baña wax mo am ba du limay baña wax nan ngay amé yaram nan ngay amé yaram ba nga démé ci Françoise matul sax wèr nga gennat jeex tak ni man ba nga amé yaram dama né ah mbaadu mbaa du xale bi dafa logaat comme nit comme nee dafa njëkkoon a log ñu toog heureusement gisuñu doom mbaa du dafa logaat ci diggante même pas un mu génn jeex ku nekk na def conclusion man du ma du ma du ma def diffamation du ma yàq der waaye comme dañuy jaay dañuy jaay yàq der di génn di di di di di dinañ la wan ne ñun ñun ñooy patriote yi dàqu leen ñu xeex de barke la sol laay bàyyi leen doomu jàmbur bi Adji Sarr nak xeyna li tax mu mu febar tamit mën na nek niñ ko séparer ak Hélène Françoise xëy lolo ko metti parce que yéen Hélène Françoise moo ko doon dajale xaalis kodas ngeen jékki-jékki bëgg ko xaañ Hélène Françoise Hélène Françoise mo génn mu ne lu tax ñu séparer ko ak Adji Sarr loolu daf ko metti Hélène Françoise mo génn Babacar Touré tegal ñu kii bi Adji Sarr est-ce que du lolo ko metti woon tamit parce que loolu mooy prisonnière ah loolu lay nduru de yaay tàpp on dirait qu'elle est mais dama leen di laaj lii est-ce que xaj na ci bopp xale 21 ans yow Hélène Françoise moo la daan dimbali Hélène Françoise moo lay dimbali ñu jékki-jékki nga def interview ak Hélène Françoise ñu ne la doo dootoo wax ak Hélène Françoise Hélène Françoise bu wootee sax du ko gis deux semaines trois semaines mais loolu mun na mën na ko jeex jeexloo mun na ko feebar ba mu jeex damay wax rek ñun dañu analyser xëy na nag loolu tax gars yi tiit daal di woowaat Hélène Françoise ndax Hélène Françoise ñëwaat na ba am na lu mu ko organiser euh, ci 31 décembre bi waaw kon ñoom il faut nu ñu comprendre ne Hélène Françoise moo leen gën a nekk bandi moo leen gën a sadik te li mu xam Hélène Françoise li mu xam boo leen dof-dof loo ba naan da ngeen koy jéem a taqaleeg Adji Sarr di ngeen xam ne Hélène Françoise jaaxalu leen ko Hélène Françoise Gaye fit bi mu am war a liggéey ci France ci ci kii mu ne leen ay baadoola ngeen Hélène Françoise loolu leen wax mu ne li Maître El Hadji Diouf nii ay ay baadoola ngeen jaam yéen ni ma leen liggéeyal ah yaay tax ko Hélène Françoise li mu leen liggéeyal ñu bëgg ko xañ wërsëgam mu génn ne leen ay jaam ngeen te gis nga Hélène Hélène nandite la gis nga bu ñu dof dof loon naan ñuy téye euh, euh, saay Hélène ci Babacar Touré lay dem wax deug bi yep nak ne wax ñi nek ci ginaaw complot elen mo leen gëna sadik elen temps wu Assane Diouf la daan génn saaga na fi Marème Faye Sall wax na fi lu ne Macky Sall xas na fi bok du ma sagu mais xas na fi Marème xas fi Macky kon yow met El Hadj Diouf jaaxaloo Hélène Françoise comploteurs yi jaaxalu leen elen françois ba ngeen ko ci dugale ngeen yaq mënu leen ko ci génne waaw bo leen dof dof lo ba jéem a séparé Hélène Françoise ak ak doomam bii <laughs> lekkukaayam bi bu boobaa nag vérité bi dina claté barke rasool laay non cas bi dafa intéressant ñun saa yi ñu demee ba bëgg ko fàtte ñoom ñu génn nan dañuy gaaruwaale nan dañuy def ay numéro un ba fi may wax ak yéen boo leen demee seen seen web moo fa nekk numéro un numéro un année bu bees bi dañ nii lañ koy ñoom nii lañ koy teeroo nee nañ barke rasool laay dinañ xam ne man ma njaamu Sonko maa njaagu Sonko Adji Sarr taal Sénégal ben yon, doy la voulons utiliser pour le au Sénégal Vous faites le président bi le dossier le dossier là il sera traité Je ne sais pas le wax day mel ni Charlotte Marc Charlotte le dossier là il sera traité ce dossier il sera traité vous pensez que les gens là ils vont sortir ils vont appeler au mortel combat ah ils vont tuer des gens ce dossier il sera traité Lolo la Macky Sall wax. Adji Sarr le pouvez bu la utiliser gis nga juge yi sax bëgg le jël cas waaw Aminia Macky Sall buy wax le ni ku mandi Mariama Boña Macky Sall bu dégg ngeen nous wax baatam bi hein? mais ce dossier là il sera traité Marc Charlotte. Ce dossier-là, il sera traité. Vous pensez que les gens-là, ils vont venir, ils vont tuer 14 personnes, n'est-ce pas Ils vont me faire tuer 14 personnes, ils vont détruire les Auchan, les Toto, et vous pensez que le dossier ne sera pas traité. Ce dossier-là, il sera traité. Tout le moi, nous, Tounkara Tout ñu wax de Macky Sall limousine bi bimam, la femme pour pour ay champagne Amiña Tounkara moo ni ñu ne Macky Sall limousine am bi may bag bi dafa am frigidaire pour champagne ba pare Tounkara ne ah waaye xaw xam naa ne du naan ma ne ko Tounkara bu ñu fontoo kan moo la wax du naan frigidaire frigidaire ci may bag lan la fay def buy jus de buy la fay def wala jus de bissap Macky Sall dina consomme pas sénégalais Macky il consomme français champagne lay naan daa la wax maa la ko wax ñu naan ay jus de buy ak ak coca da la fay def coca defu fa coca champagne lay def Macky Sall day dóor kaas xanaa buy wax Macky Sall ba ñëwee buy wax xanaa déggu leen baat bi ni muy liiree mu ne Marc Charles ce dossier là il sera traité ce dossier il sera traité vous pensez que ce dossier là ne sera fan nga Macky Sall day Macky Sall ba muy def ba muy euh, euh, euh, def discours fële teer bi foofu tam dégguloon baat bi nu mu doon réeré mu ne mu ne terre bi six cent cinquante milliards rek lañ ci def six cent cinquante six milliards Mansour Faye sama goro mën a dóol Mansour Faye daaw mu génn mu ne sept cent cinquante milliards lañ def ci terre mais Mansour yaa mën a dóol yow sama goro ma def la ministre nga war a ñu lekk xaalis ah ñu lekk nday xaalis ah yow da wax deux cent milliards lañ def kenn nga génn di dóol naan sept cent cinquante milliards yaa mën a dóol sept cent cinquante milliards waaye six cent cinquante six milliards lañ ci yaa mën a dóol Macky Sall barke Rasool laay pour man day naan Charlotte man man Charlotte man mooy man yéen laay waxal yéen yéenay journaliste journaliste Sénégal naan ah, su ma defee sama discours 31 décembre après dañ may laaj ñu bëgg ma laaj ci troisième mandat pour ma nekk fa di waxaat nii wii nii non xanaa man bëgguma dara yow sama ministre yi sàccan day xaalis bi yëpp ah ah bos.